ant di leen ñaanal yàlla waaye itam di ñaanal ñi nga xam ne ñooy sunu ay xalifa généraux boole ci cofeel gu dul jeex ne àdduna lépp cofeel la macha allah nu ngi sàkku ci ñoom ñaan ndax saa su ne ñu yëg ci sunu xol ak ci sunu xel nu ñu jubóog sunu borom ba lépp loo xam ne rek ñu ngi koy ñaan ngir askan wi yàllaa ngi wéy di ko def yal naka yàlla gën a def macha allah bu ko defee yàlla guddal seen fan mu ànd ak wér ñu yàgg fi lool macha allah jàmm rek dina ci ñoom. ñu ngi wax salaamaaleykum dugg ci clinique yi hôpitaux yi ak dispensaires yi ziyaara mboolem malaat bu fa nekk ñaanal ko yàlla ñaanal itam ñi nga xam ne ñooy acteur de la santé yi évidemment ndax bu ñu fa nekkul woon dana doy waar kon ñoom itam yàlla na yàlla wéral leen ba ñu tal toppatoo malaat yi ñii gunge malaat yi itam yàlla na yàlla fay leen kuy baax ku ne yàlla la gën a baax moo tax dina ñu bàyyi xel ñi nga xam ne ñoo nekk itam ci prison yi natt sunu borom rek dal ci seen kaw ñoo leen di massalu coono gannaaw bi ñu leen ñaanalee di leen fàttali ne yàllaay dogal lu mu namm war na lu mu àggale daa jot yàlla na gaaw àggee ci ñoom ñu jóge fa nu mu gënee gaaw macha allah yàlla yàlla def ci ñoom barke àdduna moo ni mel di muñ loo itam soxna yi nga xam ne ni ma koy waxee saa su ne ndax lu may lu may xalaat la ndeysaan seen borom kër yi ñoo nekk ca bërëb yooyu ñu ngee ñaan yàlla na ñu muñ àdduna ay dogal macha allah yal na yàlla fajal ñu sunu aajo yëpp macha allah lépp loo xam ne rek dafa ne sunu xel yeeg sunu xol yi yal ci yàlla teg loxo. ñu ngee fàttaliku ñi ñu baaxoo woon di ànd ak ñoom tey ñu nekk ci njégal sunu borom njégal googu yàlla ko yàlla yokk. ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu wayjur yu baax yi suñu wasila yi suñu soppe yal na yàlla tas ñu ci seen barke yàlla defal leen jàmm ca fa ñu ne bisimila leen ci seen plateau wareef ñu baaxoo nag di ci fego ak Ndoye Bane fego ci itam ak ajaratu Mami Linguère waaye tey damay njëkk dalal góor ñi ba noppi ndax ñoom itam daal li ma naqadi rek mooy yéen amu leen caméra yoo xam ne dañu leen koy tiimale rek la balaa émission bi di jot ndax moo dàq sax émission bi kon ñu ngi kontaan ci yéen ñi jàkkaarloog ñun di kontaan itam ci oustaz Modou Fall mi nga xam ne damay wax ne TFM la bokk di kontaan itam ci baaral africain ñoom ñaar ñëpp. ku ci ne ci ñoom war na fee mën a teew ndax ñu ngi waxtaanee li nga xam ne mooy immigration clandestine mbir mu yàgg ci àdduna la saa su ne ma wax ko waaye bu ñu ci bàyyantee xel rek indi ci ay waxtaan politique yi yaatal politique yi gisee defante face à face waxante dëgg incha allah yàlla dana saafara mbir mi nga xam ne mooy immigration clandestine ñun nag daf ñuy soxal ndax ay éducateur la ñu ay mère de famille la ñu duñu bëgg suñu doom yi jàpp mbëkk mi di dem à destination inconnue ne dëkk booy dem da nga fekk mu am charte dëkk booy dem dafa am ay luwaawam am culture am nga dem ci dëkk xamoo fa dara réer da lay daal di dikkal oustaz Moussa Fall maa ngi lay nuyu Fall Euh, mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi ñu ngi nuyu mboolem téléspectateur boo xam ne yaa ngi jàkkaarloo ak télévision Futurs Médias. Mm. nuyu itam sunu kilifa diine yi nga xam ne ñoom la am ci réew mi. Mm-hmm. ñaanal réew mi waaye itam ñaanal borom télé bi. nuyu la bu baax soxna Eva ziyaar la bu baax ñaanal la yow itam yàlla yokk la dëgëral. nuyu suñu soppi bi ñu bokkal plateau bi di suñu xarit moom itam. Mm-hmm. nuyu soxna mami mi nga xam ne moom itam mi bi ñaan yàlla émission bi yàlla nañ ko tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim àggalee ko ci alhamdulilahi rabbil alamin amin ya rabbal euh, ñu ngi lay nuyu gannaaw bu ñu remercier oustaz Modou Fall bismillah l'Africain waaw euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah ngi nuyu képp koo xam yaa ngi seetaan télévision Futurs Médias euh, di tàmbalee nuyoo bi li ko commencé ci kaw ba ci kanam li may wax rek ci sa nuyoo moom boo xasee nuyoo daanaka amin rek la ñuy wax ndax ñaan yu am solo yi ngay ñaan ci biir nuyoo bi mhm. waaye du tere ñu ngi nuyu waa altu ndàngal ma bu baax a baax di mhm. nuyu waa sama kër maam El Hadji Bara Diop kër Mamour ñu ngi leen di mhm. nuyu bu baax a baax di nuyu sama ñaari yaay yi euh, ci sa biir nuyoo wax nga ci lu ama am solo xamu nit ñi dégg nañ koom déet ndax nee nga yàlla lu mu namm war na lu mu def dafa jot loolu bu ko nit ñi comprendre doon rek coono day wàññeeku day fekki waxu Serigne Cheikh bi waxoon ne yàlla xamul lu xamul lu war lu jot la xam ndax li waroon yëpp def na ko ba pare heure bi lay xaar mu jot mu def ko mu ne li lay wax loolu sa montre boo ko signé euh, euh, réglé woon pour mu yee la 6 heures du matin loo yàkkamtee yàkkamtee yeewu du sonné te 6 heures jotul kon sa wax boobu buñ ko comprendre doon rek kon di day wàññeeku yàlla lu mu namm war na lu mu def dafa jot wallaay dëgg la mhm. macha allah ñu ngi kontaan bu baax a baax léeg damay namm nga sant Diop ndax yii ngay wax daal jikko njóobeen pire la euh, mbokk yi nag di leen fàttali ne ñu ngi fii ci euh, monument bi nga xam ne moom la ñuy tuddee monument renaissance africaine et toog fii dafay doon loo xam ne kontaante lañ ci am ndax booy xool Euh, ci wàllu tourisme place bi nu toog am na signification ni ko Coro Mbaar Ndiaye waxee rek sànq waaye itam booy xool itam ñu ngi ci biir population wu diggante Ngor Wakaam Yoof kon ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ku dugg ci dëkk danga nuyu ña nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi macha allah ñu ngi leen di nuyu di sàkku ci yéen ñaan macha allah di leen wax ne yéen a ngi jàkkaarloo ak seen émission wareef wax naa ko sànq. ñuy waxtaanee immigration clandestine yal nañ ci yàlla musal am na ñoo xam ne ci seen biir waxtaan dañuy wax ndeysaan nee nañu xale yi mënuñoo bañ a jàpp mbëkk mi waaye itam léeg-léeg mën nañ koo bañ a jàpp ci kaw ñu bàyyante xel ci kaw ci biir koñ yi boo séenee xale bu góor bu deful dara nga bàyyi ko xel di ko gunge di ko gunge xale yi itam nañu bàyyi xel mag ñu baax ñi ne nit a ngi ci biir dëkk bi nit a ngi ci biir biroom di kilifa bu mag xam ngeen lu tey deful njombeem balaa moo def dafa tasek nitu yàlla ko wax ak moom nitu yàlla nag bu ñu ko waxee rek waxuñu ñoom oustaz Modou Fall de ñu toog yor seen kaamin ñun itam mën nañoo doon nitu yàlla ak ak kay ndax yàlla moom dafa kamal te mandu mooy dogal lu ko neex macha allah kon waxtaan saafonte dafa am solo xale yi bu leen nangu di tëju bañ a waxtaan ci biir kër yi itam da ngay gis koo xam ne amul dara kenn faaleetu ko amaan na mësoon na am amaan na dafa amatul yooyu yëpp di ay problème yoo xam ne dañu koy dund yaay yi ngeen teg xale yi loo xam ne attan nañ ko nekkoon bu ngeen defee leneen da ngeen di jaaxal seen doom yi wax dëgg yàlla numéro bi 88 la 628 22 22 88 628 04 05 lépp lu ngeen fi séen nag muy mu jëm ci wàllu taaral kër mu jëm ci wàllu ameublement yéen lañu ko yéene ndax euh, yàlla dafa dogal at bi yépp ngeen ànd ak ñun ànd ak ñun ci bànneex ànd ak ñun ci yi fi xew yépp ngeen jàpp teewo bàyyi yàlla na yàlla fay leen ku ci woote ku ne danañ la enregistrer sa numéro nga bokk ci tiirage au au sort kon bokk li may def mooy nig leen ma dem à la à la régie ba noppi dellusiwaat macha allah. émission bi nag moom dafa sant Ndiaye ak Diop waaye ànd ak lu munti am ñu neexal leen ànd ak yéen moo tax ñu dikk fii kon liggéey bi avec ses aléas li mu àndal yépp daal dañu koy endossé macha allah di leen balu ak par moment maa ngi wax baaral africain bi simila waaw euh, Eva euh, immigration clandestine mhm. euh, buñ ko waxee dafa dafa yàgg mhm. mais tey buñ ci doon wax bilan mhm. dañ naan bilan bu lourd la si perte humaine est-ce que wax ji leer na. bilan bu lourd la en perte humaine. Euh, am na tamit bilan ci ñoo xam dañu porte disparu nga xam ne deewuñu mais dootuñu ñibbisi deewuñu mais dootuñu ñibbisi euh, immigration clandestine nag. Mm-hmm. Euh, bu fekkee ci gaal yi la. li ko njëkk a waral mooy li fi mu commencé. Mm-hmm. gaal bu doon nappi ñu réer dem ba Espagne dañoo réer dem Espagne. ñooña bi ñu wootee ñu ne ndekete loolu mën naa ne. ah dégg naa la loolu mën naa ne. ñu ne bu jëlee gaal bi ñooñu affaire bi yàgg na mais deux deux cinq 2005 2006 ci la phénomène bi nag commencé. Mm. ci la ko sénégalais xam. Mm. mais man xam naa ñoo xam bañ ciy dem 2000 jotagul. ah waaw xam nga boo xoolee. ma ngi ca 1960 voilà léegi nag. Mhm. Euh, bu ñu ñëwee ci biir Afrique. Mhm. tey jii may wax ak yow. Mhm. am na ay immigré africain yoo xam ne ñi ngi clandestin bëgg a dugg ci pays africain mu tëleen. kon xam nga kon pays européen taxul ñuy wax. tey boo demee entre euh, Cameroun ak Gabon. am na ay sénégalais yu fa nekk bëgg a dugg Gabon ñi bëgg a dugg Guinée Équatoriale mu tëleen. nga dem Congo am na ñu bëgg a dugg Angola mu tëleen. nga dem Mozambique am na ñu bëgg a dugg Afrique du Sud mu tëleen mhm. parce que boo demee Afrique euh, Mozambique dafa am benn luuma bu fay am mhm. luuma boo fa am train buy jóg Afrique du Sud mhm. fa la clandestin di xaar pour mën a lang train bi dugg Afrique du Sud te immigration clandestine ci biir Afrique moo gën a metti parce que li tax mu gën a metti ay traverse ay frontière la ñu leen di jàpp leen tëj ci ay frontières kon influence bu la ci mën a dugal jaru ko dama leen laaj dara est-ce que mus nga gis ku fi dund ba dee te dem màkk da ngaa gis paa bu dox dem màkk. ay jamono woon. loolu mais fi xam nga tey ñun uh-huh, musuñu dégg paa boo xam ne. Mm. gis nañ ko nii mu dox wuti màkk. Mm. te kenn gënu koo bëgg aj waaw pourquoi mu bëgg a influencer doom wala mu jéem a dugal doomam ci boppam. Mm. ba mu bëgg xaru jël boppam dugal ci gaal ba mu jaar ci désert bi. vrai xam nga problème bi li mu doon mooy. boo demee Agadez fa la bi nga xam ne moo gën a mag. ci ñi war a jaar Libi fa la camp bi nekk mais OIM dafay dem reportage euh, waa Nations Unies di fa dem waa CNN na télé yi ngay xalaat yëpp dañ fay dem mais lan moo tax mënuñu leen foofu ñu bloqué leen mais dañuy bàyyi bañ dee ci désert bi ñu soog a commencé di wax te pourtant xam nañ camp ba fa mu nekk xam nañ la fa ne ci la fa ci ay nit kenn xamul nu mu toll te xam nañ ne ñii bu ñu jógee fii désert bi ñu jël 3000 kilomètres la wala 3500 kilomètres oto yi ñuy jël oto bi warta mën a def dix personnes ñu def ci cinquante cinq personnes ay pick-up te ñoom xam nañ départ yi fan la xam nañ naka la bu ñu demee foofu ñoom dañuy jël ay guide ñu leen di defar reportage naa leen convoi bi mooy départ tey convoi léegi ñuy teg lool ci seen tele yi pourtant munoon nañ leen a mënoon lañ leen a bloqué foofu bu fekkee ne rek dañ dañ bëgg a xeex immigration clandestine te immigration clandestine démb maa ngi dégg mami mu ne bu ñu eggee ñu dañ leen di dañ leen di leen di faj wala nangam dañ leen defal ay test jël ci ay poche de sang mais leneen lu gën a grave mooy euh, trafic d'organe bi nekk ci biir dañ ko wax te parce que nit ñi ñi ngi soxla ay problème yi ñi ngi ko am problème yi cœur problème yi foie mm. mënuñu gis monde bu toll noonu di dee ci ndox ñu leen di seetaan noonu defuñu ko trafic d'organe bi ci nekk moo gën a grave nañ def fii émission am ku oote mu ne euh, papaam xaw ma tontoom dafa amee problème mu rein bi mu ko commandé Europe dañ kon Afrique lay jóge naxaar xaar. d'accord comprendre nga. kon nag su fekkee ne yow yow ñoom ñi ngi déparé te li may wax ni lu leer bu fekkoon diggante naar yi ak naar yi immigré bu jaar foofu jàll. mais ci diggante sénégalais la maliens yi gambiens guinéens nigériens ñooñu ñooy arnaqué seen moroomu africains yi. gisa li ko commencé li ko commencé Agadez ba Gadroum première raison bi ngay jot. Libi trent mille francs la naar yi di fayeeku passeur africain yi muy sénégalais yeeg ñooñu ñoom ñooy laaj seen mbokk sénégalais yi 250000 te duñ fay naar bi léegi nag ñooñu bu ñu dawalee oto ba dugg ci kër gi naar bi moom bu ñëwee day dawal oto ba dugg ci këram laaj xaalisam ñu ne quoi ah, ñun fay nañ. coxeur bi bu naar wooyee coxeur mu ne ko noon lañuy def dañuy jaay muus soo leen torturé ñu fay la te pourtant ki lay def loolu yow dana dama ne nga ne ko ah mu dekk sénégalais ngay sénégalais su dee gambien gambien moo ko wax yow bu dee guinéen guinéen moo ko wax ak yow tey foofu ngay jaar naar yooyu jàppale di la dóor pour nga fay boo woote waate ñu la boo amee ay mbokk Sénégal wax leen yónnee la xaalis très bien foofu la ñuy taxaw man de mbir mi dafa mel ni gën na gën na xóot a xóot a xóot que ñun ñuy gis nii rek xale yi nekk ca ca ca ndox mi ñu ñu bàyyi Modou Fall mu dikk ak jàmm Modou Fall yow itam euh, oustaz nga bu architecture noonu laa koy tooñee Adja yi ma ni ko moom euh, dafay oustaz boo xam ne ku miin réseaux sociaux yi la waaye itam ku miin diaspora bi ci bitim réew la yitam itam Fall bismillah bala may nuyoo nag ndeysaan nga woo naar ci guuxum soow xam nga bul fàtte ne moom ci mbëkk mi la jaaroon xam nga maa ngi la koy wax démb oustaz bi toog ci mbëkk mi la jaar. léegi yow da ngay toog ne pat rek ba mu ñëw ci yow. <laughs> daal léemu woon bi xam nga lii. mais xam nga c'est des <coughs> dama xamul ndax damay woo Aïssatou Diémé fële ca tribunal wala xaw ma sax kan laay woo. xam nga Eva Eva mami bi mu fi toogee congé bu yàgg affaire bi dafa xawoon a dëgër. mu woo ma di ma laaj affaire u mbëkk mi man xalaat laa ci am. waaw ah. ne ko yow de boo jaaree ci gaal gi moom dañ lay revue de presse. kon nag muñal rek ba congé bi jeex. xam nga lii la wala fay wax naan euh, wala fay naan xamal la ngay wax bu bul xam lan laa tontu waaw bisimilah Fall mais xam nga Eva. Euh, yàlla. Hmm. bi mu ñu bindee. Hmm. dafa fexe moom yàlla ba sunu wërsëg yi tolloowul. waaw waaw. ni sunu juróomi baaraam yi wuutee. waaw noonu la sunu wërsëg yi wuutee. est-ce àdduna mënoo fee nekk ba lekk wërsëgu. jàmbur kuy dox ci kaw suuf ku ne rek la nga war a dundee yàlla programme ni ko démb avant tey wa ma min dabbatin fil ardi illaa mm. ala allahi rizquha kuy dukkat ci àdduna bi rek la nga war a dundee yàllaa la koy jox nit mënu fee lekk lu dul sa wërsëg moo tax doomu aadama bi bi ko bi ko wéy juróom ëmbee mm. bi ëmb bi amee ñeent fukki guddi mm. ci la yàlla programme li nit ki war a am bu juddoo. allahu akbar. ñaata at la war a dund. Mm. dañ koy bind. yàlla nee na ñaata yoon la war a feebar ci dundam dama koy nome dafa war a tukki wala warta tukki yàlla nee na dama koy bind ñaat soxna la war a am dama koy bind li mu war a am lépp yàlla nee na nome naa ko démb avant muy judd. kon yow nga juddu. bëgg a loo xam ne yàlla programmé lu la ko da ngay indil sa bopp problème. allahu bari na ku yaakaar ni tukki mooy tax am booba yëgoolu xew. boo demee bitim réew da nga fa gis ñoo xam ne def nañ fa vingt ans. Mm. te dañuy am problème mu yónnee dépense. vingt ans vingt ans dañ koy def bitim réew dañuy am problème mu yónnee dépense mais dañuy am problème mu fay luyaas kon nga xam ni dem Europe taxut a am teraanga. am na nit ñu ne ci réew mi ñoo xam ne amuñu carte d'identité bay am passeport loo indi ñoo la koy wecc am na ñoo xam ni ñi ngi fii ci réew mi seen teraanga di leen fi fekk booy wuti jaar ko ci yoon bu la dogal dalee nag ñu xam ne yàllaa ko dogal waaye géej ak na ko yàlla bindee nga ni dangay yéeg ci gaal pour lan pour dem bitim réew pour ami dalul xel man de soppuma lu dalul xel te am na loo xam ne Eva naam jamono laajatu ko mu di mu yàkkamti olof tegal foofu loxo de. Mhm. ndawu tey nag am na ñu ci yàkkamti. te ya euh, olof ay wax ni yàkkamti yàqule. dégg naa boo yàkkamtee da ngay yàqal sa bopp. Eva yàlla du jël sa wërsëg di ma ko jox du jaawale nit ñi. abadan ku ne li nga war a am danga koy am. li mm. am solo mooy gëm yàlla. te nekk ci li nga war a nekk. bul toog rek yaafus ne sama wërsëg dana ma fekk fii déedéet sabab lul jaar ko fi nga ko war a jaar. Hmm. boo defee la nga war a def nag sañ am yaakaar. tegal foofu loxo ku def la nga war a def sañ am yaakaar nee nañu sax boo boo defee euh, naka ci boo defee ni nga wax ko. li la war. Ah. am li la war. waaw boo deful li la war danga naan nuus ne yàcc na yasar sa yasar ban na rek. ne noonu rek ngay nuyoo. dee ci gaal gi réer ci désert bi. naax saay. gaal gi këpp nit ña suux da nga architecture la la jàppoon daaw yàlla la jàppaat euh, bismillah euh, mami du ma ci teg amin ñu ngi waxtaanee lu doy waa parce que tey xam nga boo toogee ñoo xamante ne dañ lay ruube di la tëmbaaje da ngay régler sam pecc te gis naa ne yow ak oustaz ay accusation yu garaaw ngeen may def eh, eh, nii eh, parce que yaa ngi may ñaanal loo xam ne bu amee xam naa ne moom damay damay far abandonné. <laughs> gisoon nañ fi ko def elles sont toutes belles de ba ko kii mu ne j'ai démissionné booba Aram. <laughs> kaay monte mu ne damay démissionné fekk na yow booba la <laughs> ëmb fóot bi ci ginnaaw daa am bu ne ci kanam. yow wuy ma nuyool mami. waaw jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sama yaakaar tey la sama maam yàlla na mag Nelson Mandela. di ziar mboolem kilifa diine kilifa aada tey nag gis ngeen ne nuyoo bi tey foofu lañ ko yemale waaye ku ne gis na sa di nuyu baara l'africain waaye di jox nag euh, wàccuwaayam sunu xaritu bopp wax dëgg yàlla muy moo du faal moom ku nekk xam na ne nag sama xarit la sunu xarit la noonu waa wareef uh-huh. waaye léeg-léeg mu dóoru xeer ma fayu amul problème uh-huh. dégg naa nag dafa takk ci soxna promotion yi uh-huh. mais yooyu yëpp soxna si muñal rek yàlla moom mooy dogalee noonu mu indi nag moom ak baara lu lu lu am solo xam nga moom dund na ko parce que dina gis gone ya mais baara moom bi ñu ko nee baara l'africain rek la wax ji yëpp jeex. dëgg la baara dafay wax sama yaram di daw. Mm. parce que xam nga moom mi ko dund am na loo xam ne moom ñeme na ko wax. Mm-hmm. jàmm njëkk ci mujj ci. mais man tey su ma ko waxoon ñu daal di koy dagg léegi daal ne déggal ma mi la mu wax nee na ba ci ñuy jël gaal yi mm-hmm. ña ngay jël ca ñoom ay organe mm-hmm. te wallahi lazim lu ñu ñeme wax ak lu ñu ñeme wuta wax a fi nekk mais xam nañ la cee xew lépp ci biir parce que lu nekk ngi ci nag ndax ku tumbat la weewu damm xaj na ca mm. Eva dafa dem ba euh, dafa monsieur Koulibaly barki dem bi mu toogee fii daf ne la garant Koulibaly daf ne la mbir mi am na ci leneen ak leneen loo xamante ne dafa gën a sori ka fi ko bët di gisee mhm. sëb la li ko bënn mi ngi ci biir mhm. gis nga li ma gën a naqari mooy ñi ñuy daw di wuti ñu duñu rejeté seen intérêt dafa nekk ci ñun bu dul benn du ñaar du ñett du ñeent. Mhm. te loolu yëpp ñoom ñu ngi ko ciy jël mais ñu koy gën a gaaw a amee mooy. buñ ñu sonnalee xor ñooñal ñu parce que xale mooy wuta jee lu mu bëgg neen nu nekk. mais oustaz wax lu am solo. Hmm. ku dund ba déwén jot ci projet yi ba déwén. yàlla nga ak jal yu mu tàmbaleegul te pour ñun nit ji rek la du pour mala yi du pour ñeneen hmm. mais nit ki moo nanguwul toogal xaar sa wërsëg xale yi tey nangootuñu ko hmm. te xamuñu ne boo ko xaaree mu ñëw ndaxte nag yóbbante yàlla rek a wóor boo bëggee mu def ci sa ndab soo bañee mu def ci sa ndab kon nangul mu def ci sa ndab muy sëb cër macha allah euh, euh, baara baara la ñu mën a wax bare na kër yi dañuy faral di xumb ndax euh, xale ngi ci biir kër gi nee nañ comportement ba waa kër ga am ak moom moo waral nit ki jéngu ne bi muy dem moo moo kuy xaroo yam xam nga kii xaru de am na benn beneen altitude boo xam ne moom àgg na fa ba pare fa la toll mais bu ñu ko raisonné woon teel a daj ci moom amaan na la mu def du ko def waaw xam nga sànq nee nga euh, léeg-léeg nga gis nit bëgg a def dara taseeg nitu yàlla mu wax ak moom mm. euh, loolu dafa am solo mm-hmm. mais yar tamit dafa am solo gis nit say doom fexeel ñu am gëm-gëmu seen borom am yàqin ne seen wërsëg yàllaa ko yor te moo leen koy jox. est-ce euh, xëy wuti loolu yow sa warugar la yow nit ki. Mm-hmm. mais xëy am nag ci loxo suñ borom la ne. il faut nit ki am gëm-gëm boobu. Mm-hmm. te il faut nit ñi am benn nit ñi comprendre ne jàng. du mm-hmm. pour am mais pour xam la nit ki. du question da ngaa jàng rek diplôme yi doo ko lekk doo ko def dara da ko doon jàng pour xam bi nga xamee nag léegi daf la war a yombalal yow sa dundin mais pour pourquoi nga war a jàng yow ba xam mu gën a jafeel sa dundin mooy teg nga diplôme yi di xaar ku la wookaay liggéey biir kër yooyu ngay wax muy yaay yi muy sœur yi muy euh, euh, papa yi luy njaa lu dul njaaga ñoom la parce que li tax mooy mënuloo nekk ak sa doom ci biir kër gi di ko tegloo bëtam bu fekkoon da ko naan xoolal oustaz Modou Fall ni mu yiwee xoolal ni mu amee diine jéemal a roy ci moom jéemal a roy ci komi mais déedéet euh, ku ñu la ne xoolal ci diw rek am am lañ lay won xoolal kër gi mu tabax xoolal li mu def mm. soo yow ki nga xam ne yàlla musal na ko mu dugg ci gaal gi dem su ñëwee toog nuy si la yow seen biir kër may sa yaay xaalis ñoo ko ay waay gone gu baax gi yow mi fi des moom baaxoo nga ne ko ah mais sa waay mun la ah affaire bi yëfu góor la ah yëfu góor kese la de moom teggi na yàlla teg fële moom nee na yëfu góor la hmm. lim ci dajoon yëpp du ko wax dëgg nee na la yëfu góor la hmm. dèjà loolu jam na la benn pikiir hmm. ci sa kanamu parents yi su ko defee bu ne bu génnee ñu ne waa mi ngi nii de moom de góor la sa sœur buy génn wala nga gis heure bi mu ñëw nga ne ko mun la hee eh, mun ma dara lim may jox ay say morom dong nga ko koy jox mooy indil. dëgg la de mais léegi loolu ñu dëkkal ko ci say nopp soo nuyoo sa papa du la fay. naan la amoo jom ndax da nga ñàkk amoo jom. Mm. naroo maa teral diw li mu defal baayam. Mm. xoolal bërki démboo njaay. Mm. yaa ko mag fuuf. sa yaay naan la gënumaa sëy. li mu sëy rek laa sëy. walla maa ko gën a sëy damaa sëy ba tëdd ca naaj wa. xamul ndax moom la mu sëy yàlla da koo dencal pour fële te fële dàq te fee du jeex xamu ci loolu de mm. kon moom da doon sëy investissement bi mu def moom fii la ko soxla ak a gàtt gis-gis ku ci gis mbiru mbiru mbiru dunia. ku ak yaa gàtt gis-gis gis-gis xam nga affaire bi foofu la commencé. Ah, problème bi. si euh. euh, biir kër gi la. léegi na xale bi commencé génn di am ni muy waxtaanal ci mbedd mi. Hmm. diw dem na ñëw na pourtant nee na amul benn problème. 17 hmm. jours la def ci yoon bi wala 20 jours wala une semaine la def. gis nga influence yooyu di di commencé di daw. Hmm. ñu commencé nag teg seen i projet am na koo xam bi muy jógee fii magasin la jaay. te jël xaalisam dénk mami ne ko fu ma toll bu ma la nee yónnee ma nangam nga yónnee ma te pourtant kooku defoon loolu jaay magasin bi ñi àndaloon di leen paasal egg na moom mu dee. cher te te te oustaz balaa maa dem ci mami. kër yi soxna Eva ni ko Baara waxee. waaw. concurrence bi am ci kër yeeg famille yi yëpp. diw am na te diw amul moo ko waral. parce que da gis koo xam ni bu doomu diw amee dafa jàpp ni doomam dafa war a am. boo gisee concurrence di am ci ay doomu baay famille lu ëpp. Mm. mooy ñii dañoo am ñii amuñu. te boo bëggee tëb tëb tëb ne tey tey tey nga am indil nga sa bopp coono parce que kiy joxe kenn la te mooy yàlla. Mm. nit dana dem bitim réew def fa deux ans. Mm. am ay millions. nit mm-hmm. dem fa def vingt ans du am dara programme mu yàlla la. dégg naa dëgg. te Eva léegi. da ngay nekk Europe. mbaa yëg nga ni Moodu Moodu yee gën a sonn ci réew mi. lu nu liggéey ah. balaa seen xol sedd dañoo dem ca banque ba envoyé ko Sénégal kañ koy envoyé bu ca jotee du leen woo ne leen merci ku la yónnee xaalis. maanaam accusé de réception. waaw allo jot naa wala tërël jot naa bien reçu. mais ko envoyé ko envoyé xaalis bu la woowaatee daa jaawale code bi. yow yaa koy woo sax ne ko ndax jot nga ci xaalis. bu sa téléphone sonné code bi la jaawale code bi mais woowu la pour gërëm la. Eva am na koo xam ne bi muy mën dara ñaaw bañ a accuser réception mais am na nit ñi xam am na koo xam ne jàng ak ñàkk jàng yem am na koo xam ne bi muy man dimbali na ku nekk ba tukki di neex la daan tukki am na ñoo xam ni dañ leen a jàpp amuñu kayit ñu rapa rapatrier la ñuy wax ñu rapatrier leen te buñ la rapatrier boo accès cinq jours moom danañ la taajal ndékki parce que da ngay doog a ñëw mais bu cinq xamaguñ lu la indi xamagoo loo indi <laughs> boo fi yàggee moodu moodu day ñëw ci réew mi yàgg fi koo dajal ñu béegoo Europe nañ la naan ñibbeegoo te nga dëkk ci réew mi yooyu nag mooy influencer nit ñi ñu dem ba jàpp ni ku tukkiwul doo tekki ñu dem ba jàpp ni ku tukki da ngaa war a am teraanga ñu dem ba jàpp ni doomu diw jii bu ko doomam dee defal teraanga te man sama doom tukki na amagul amagul lum ma jox rek man sama doom daa torox am na wuy jur yoo xam ni ñooy influencer seeni doom pour ñu def lu bon mm-hmm. parce que jàpp nañ ne doom ji yor ay millions di leen ko jox doom jooju moo tekki xam nga kër boo fa yorul te nekk taaw caat ngay doon. Euh, da ngay dellu si kër boo fa yorul te nekk taaw caat ngay doon. caat ngay doon parce que taaw bu yorul Sénégal dañ lay def caat bu ñu dee waxtaanee problème mu kër gi boo ñëwee ñu ne chee yow nag moom neel tekk ba ñu waxtaan ba xam lu ñuy diisoo say kàddu amul solo. wala yow moom da ngaa metti lu ñu fi dank nga tas ko. nga tas ko nañ leen def amul problème bu ñëwee ñu yëgal ko. foofu léegi nag mami xola mami mooy xola mami mooy caatu kër gi. moom la ñuy déglu moom la ñuy laaj xalaatam parce que mooy joxe dépense bi mooy fay courant bi mooy dimbali xale yi lu mu wax yaay sa yaay sax boo dalee ci kaw mami yow dalay ba maanaam caat bi la ñu jël daal def ko teg ko ci kaw parce que réew mi boo fi yorul xaalis xale nga xaw ma nañ lañ koy waxee naan l'argent xaw ma kele xaw ma lan ah, man damaa jàngul. et la xaw ma lan bëgguma man nii bëgguma koy xam. xam nga ma bëggut a xam. <laughs> gis nga mooy mooy may faral di tooñee rek. jërëjëf Fall. gis réew mi boo yorul. waaw del moytu tooñ te ku la tooñ nga ne ko jéggal naa la. wax ah, nga dëgg de. boo yorul boo yorul. bul xeex bul xuloo bul àtteeb xeex gàttalal sa tànk gàttal saw làmmiñ te luñ la boolewul bu ca bokk boo fekkee wax sax maandu ca mm-hmm. nañ leen def bu ñëwee amul problème mm. jarta tàggu moom na naqariwul deret mm. añ bi pare na yàq leen bu dikkee lu mu fi fekk lekk mm. foo ko déggee mooy dangaa deful dara ca kër ga dëgg la de li baara wax sànq nit ki day dem ba ñëw xamuñu lu mu doon liggéey ca réew ma xamuñu ndax moom mii da doon jaay naka sudul noonu mm-hmm. ci simakaani buksu gi la sëggoon di jaay mm-hmm. xamuñu ndax daa këpp keesu tubaab daw tubaab ba di ko wërta seegul senegal xamuñu lan la def ba dellu si ci réew mi xamuñu ndax ndax Interpol on kay seet da lay wër léeg-léeg da ngaa am sa doom mu ñibbi sa sax a gën fa mu ne woon wallaay boo xamoon lu ca ne man li ngeen nga ñëw toog mm. maire yi naan la billaay xamoon naa ne lii dina am sa ndey layoon naag géej gi ba yey leen nga ñëw ci kër gi di nuyu yaay ki nga xamante ne moom ndeysaan mi ngi toog di xaar naan yàlla baax na ndax gëm na ne yàlla dina indi wërsëgam mm. ndax yàlla du bindi ci fanweer rey ci fukk ak juróom mu toog di ko xaar nga daal dégg sa yaay daal ne ko billaay xamoon naa ne doom di nga tekki mm-hmm. yaayam ji ko jur naan ko ba nga juddoo sonaloo ma ci dara mm-hmm. bi ma la ëmbee tifli sax musuma koo def ah, am yooyu waaw boo nekkee ci kër ah. nga nekk ak say rakk comme li oustaz Modou Fall wax say rakk tekki yow tekki woo waaw sa yaay dala koy dala koy gaar waale danaa sa rakk yéen xamoon naan di ngeen ma noppal bi ma la ëmbee tifli sax daaw ma ko def amoon ndigg luy metti keroog bi ma lay wasin damaa togg añ togg reer ba pare sangu ba set sol sama marinière daago dem ci clinique bu jur la waa <laughs> ndax lan xaalis bee teew tey yow mi nga xam ne nag yow say mbir dafa dëgër jéemu ñoo xool lu ko dëgëral jéemu ñoo xaar xam ne xëy na bés dana ñëw mu baax ci yow déedéet yow la ñuy tendance yow la ñuy gaar waale mm. loo wax mu indi problème yow la ñuy taw tuumaal naqari deret mais mm-hmm. da ngay xëy ne naa jël mbëkk mi te dem dëgg la xam nga toog di dund te yow sa dund nekk dund wereyaan mhm. da ngay dem ba yemale ko ak dee mhm. ndax dee mettiwul waaj a dee moo metti mhm. da nga naan naa dem léegi lu ma am jël comme man biir kër gi ma dëkk maa ngi lay wax fii bi nga xamante ne xale bi man gëm naa ne ngi koy xaar fi ñetti fan yëpp gisuma ko mais heure bu ma génnee dina gis message am wala dina ma woo mais nangoogul ñëw ba léegi dafa ñemewut man gëm naa ne xale bi suñ ci jàppulee dina xaru wala dina def naka sudul noonu ju ko yóbbu 100 mètres parce que moom dafa ñibbisi ci kër gi mm. ay sëram ñoo toog daat ne moom xaw ma lu ko teree woon a dee ci géej gi ne ay moromam. ndax ñàkk jom weesuwul ne yàcc dem ba yegg dellu siwaat mënoon na faa dee te boobu ñu koy wax ñoom jàppoon nañ ne dégg ko mais moom mi ngi toog di ko dégg actuellement loolu tax ne nee na ma taamami man nu ma amee baax na xam nga alal ju bari wala bàmmeel bu sori man gëm naa ne ak ndof la ndax bàmmeel bu jege say bokk suul la gis la nga gis sa doom mu xam ne fii la tëdd yàllaa ko rey dem na yaakaar naa ne moo gën a noppale looloo njëkkoon a xew balaa barsa barsa ay wa bismillah njëkk dañ doon alal ju bari wala bàmmeel bu sori sori balaa barsa barsa di xew xam nga euh, affaire bi euh, ni ko waxee biir kër yi gis nga nit ku nekk da nga am sa dignité am na ñoo xam toujours fi ñu lay fi laal mooy sori ci yow waa mais bu nit mënee wax ak nit Mm-hmm. am lu mu ko gëmloo ba mu takk bomb ci boppam explosé boppam. dégg naa la de. kon kay nit si boppam dafa am lu sori ci moom loo am na foo xam boo ko xasee touché dootul gis leneen lee rek lay gis. lool rek lay gis. Mm. te xale yi am na discours yu mett yu ñuy dégg ci biir kër yi yoo xam ne mooy li ñuy wax rek xale bi ci tontu woon papaam bi ko papaam sonalee ci di da ñàkk jom tabaxaloo ma kër. Mm. diw tabaxal na baayam kër. mun na ko mais papa yow sa papa tabaxaloo ko kër. Hmm. yow it yóbbuwoo sa papa màkk. pourquoi man ma war la ëpp jom. c'est que bu xale yëpp doon am raisonnement bu mel noonu nga xam ne yow kenn du la teg loo munul. parce que yàlla sax moom mi ñu. sàkk bëgg wax nit a ngi teg teg doomam loo xam ne moom. ci boppam defalu ko ay waajuram ba pare bëgg ko teg doomam. Ah. mais Baara problème bi mooy. Euh, euh, waajur yi ñoo war a bàyyi seen jëng gu metti gi. dégguma la parents yi ñoo war a bàyyi seen jëng gu metti gi. ku jur say doom da nga leen di yamale mm. bàyyi leen jël ñi yàlla dénk teraanga di leen teg ci seen kaw mag yi bàyyi leen loolu mm. da ngay gis koo xam ne day takk jabar jabaram ne ci kër gi mais moom yorul mm. mais ay doomu baayam parce que kër yi këru famille yi te jigéen ñi jigéen ñi ah, maanaam eh, jigéen ñi di fa sëy nga am ay mag am ay rakk souvent jigéen ñooñu ka ca jëkkëram gën a néew doole mooy gën a sonn kooku bu ñekkee añ sax duñ ko woo. bu bu bu tabaski jotee am na ñoo xam dañuy profité di tànn hôtesse yu cher pour koñe ko parce que xam nañ ni jëkkëram yorul. Mm-hmm. di def yu sew yoo xam ne te àdduna yàlla waxul kenn dara bu goro bi xewlee ñu ñu laaj natt ñu laaj eh, ne nañ na kenn ku nekk joxe pour ñu dajale jox goro bi cotisation yu cher ndax ne xam nañ ne du joxe bu ko defee ñu naan ñoo ko yóbbaale mais xam nga xam nga Eva lu yàlla wax ni dans l'histoire lu yàlla wax ba noppi ma laaj la li ma la bëgg a laaj wa tilkal ayyaamu nu daawiluha bayna naasi yàlla nee na ku yebu xamal li ngay def ndax damay tourner affaire bi waa léegi sama question bi mën na ma la ko jox uh-huh. da nga ma bëgg wax ne jamono yi ñu toggee itam di waxtaan am ah, di waxtaan am na jeeg boo xam ne oto bu dem oto beneen ñëw gaare dëgg la te booba bu ñu retourné woon histoire y a longtemps xaw naa dee ca kër ga mu ne woon mais dëgg la parce que nit gis nga Eva waaw nit ñi ni ñu lay jàppee tey du bokk ak ni ñu lay jàppee ëllëg booy sonn di di daj ay coono di di dund naqar ak tiis doo gis kenn mais bu neexee da ngay bari doomu ndey kolkérés sama xarit sama doomu ndey kol kërési bi lay maa la bëgg lii da nga ko fee sonn soppiku Sénégal boo amee dañ lay tagg boo ñàkkee ñu xas la am na koo xam ni bi muy débuté da nga ko doon xas parce que jàppoon ni dana réussir ci lii Eva mu commencé émission nga naan du dem de dem ba mu yàgg nit ñi nag di ko suivre mu ëpp ay vie nga mujj apprécier am na ñoo xam ni nangu ñàkk pexe la ñuy nangu te bi ngay débuté d'accorduñ ñoo la doon critiquer di la xas du ci am ndam daa waane tey nag dem nañ ba affaire bi gis nañ ni tàkk na foog ñu bokk ci. mooy li may wax léeg-léeg da ngay gis koo xam ni fi mu toog lay toog naan pourtant booy bii di waaraate may naa maa ko yar. yow yar nit ki te mayoo ko ñaar dërëm joxoo ko dërëm jamonoy xale naan maa ko yar léegi miyaanduur mi fi bëgg a toog di wéy nag ma siiwal ko <laughs> nee na noonu démb suñu nangoo seen seen i pexe jugul xam nga dafa am loo laaj oustaz dafa ah. ma wax ko am loo laaj dafa am laaj oustaz xam nga dañuy wax ñu ne jéeg na caraxu bu ay doomam màggee mu koket njoletaal nuyu nañ ko cay la mu am joo dégg ju nekk rek cay la mu daja ca topp te bala mu ne neex neex faaw mu ne nux nux kaala waaw dafay jëkkee ci bopp soogay dem ci ndigg mm-hmm. mais bu jëkkee ci ndigg rek bu dellu see ci bopp day ñàkk xorom mm-hmm. nit ki da ngay def ci bi nga waree def bu def weesoo nga toog bànneexu liggéeykat boo xar boo seen muy dem pension lay xaar mm-hmm. te bu retraite dikkee mu jot ci mais bu fekkente ne nag yow sonnoo ko woon démb wala da ngaa bund xataaloon sax njaboot démb pour ñu am ko xanaa xamoo ne gis say doom sax ñuy dem ak ñëw comme lii li li li monsieur Sarr doon wax démb richesse la. Mm-hmm. mais yow bu fekkente ne bëgg alal ak bëgg bokk ci nattu koñ bi nattu dem màkka bi nattu leneen bi tax na nga badd sa njaboot ba ñoom ñëpp ñu jeex ci géej gi ñuy jeex ci désert bi. Mm. mais yow pertement commencé na la dikkal. a tumuraanke ci jeeg mooy ñëpp gis say doo seeni doom di leen yónni te yow gisoo doom joo yónni tam wóor na la sa doom ju dem ju nekk yaa ko gëtan ba mu génn gàlle. te yàlla may la doom nga gis ko ne ñaara am yàlla dana la xañ doom waaye nga am doom ba noppi mënoo ci. gis euh, nga jouir na mu la neexee ñi yàlla doom ñàkkuñu doom ndax may na leen xolub ñu doomoo doom yi ñu leen jural ak ay dëgg mais ñenn ñi jur doom ba noppi te xamuñu li tax yàlla may leen ko jàpp ne doom jooj dañ ko war a def bitigu mbagg mhm. ba keroog muy nekk ab kenkaay yëri wala ab grossiste ñooñu ñoo juum mooy ñu jàpp ne ñu jàpp ne investissement bi dañ war a fayeeku fii rek jooni jooni la waa xam nga euh, li la wax ne kër yi metti na mhm, merci ma ñun dañ doon recevoir ay cas koo xam ne fi mu jógee danga doon wax dee moo ko dese bu egsee yow da nga koy yërëm da nga ci gis ku tàggoo xelam mais soo nee jënd billet mu ñibbi senegal mu ne xaru moo ko gënal lool. danaan la bu ma naree dellu senegal moom bàyyi leen mu fii ma dee fi benn yoon. te fa mu jóge yow di nga xam kii la mu daj. loo xam ne nii euh, mburu daju ko ci taal. waaye bëggu te jaaraat foofu dee fa moo ko gënal mu ñibbi ñibbisiwaat senegal di tëdd kat di nelaw di yeew. li gën a garaaw mooy boo ko gàddoo ba ndi ko Sénégal fa mu jaaroon ba dem lay jaaraat dem. lool la la dem bi ñu paree fii am na benn xale bu gor bu soloon t-shirt bu noir taxawoon fii. dañoo pare mu ne ma taama mi man demoon naa ci gaal gi ma ne ko waa mu ne ma bu ginnaaw subaa su gisaatee gaal delluwaat. mais clandestin bi gën a metti mooy ñi jóge Brésil jëm Amérique. bu amul bu gën a metti boobu àllu Mexico boobu li fa dee ci Sénégal kenn xamul lu mu toll. ay waay pourtant ñi Donald Trump rapatrié woon gars yi di kaas genn wàll gi yëpp foofu lañ jaaroon dugg ah. foofu la ñuy jaar dem Bahamas dem Florida wala ñu jaar Bamini dem euh, Miami parce que diggante Bamini ak Miami sorewul cinq minutes la ci bato yi. noonu la ñuy def euh, Brésil la ñuy jóge jaar ci àll bi ba dugg ba dugg Florida wara ñu dugg Miami te foofu li am na ay senegal yu ma recevoir temps yi passé bi ñuy dem 35 la est-ce que du 3 ñoo dugg ñëpp a dee ci yoon bi. nee na ay rab ñoo leen di lekk la dégguma la la ñoon bi ñuy déparé Brésil foog naa 3 la ma wax ñoo dugg. subhanallah ne ay rab ñoo leen di lekk ci àll bi. ay lan rab. pour te jamono yi wees am na xam nga nag ñii dem dañu dul Eva Tra ne man mënoo wax li ma jàpp. mais Eva xam nga xam nga dem xam nga ñiy dem. volonté moo leen di yóbbu. ak bëgg a faj buumu gàcc. Eva réew mi daa tardé. ah kay Sénégal gii. maa ci xam dara sama toogaay gi fii nii rek. bu nooyee ci sa côté jàppal ni am na ku wow ci côté. trop te am joma fi ne rek. mais Eva bari na kuy ku engagé wu pour tukki. tey maa dem def Mariam Faye Sall sama xarit sax gis nga Eva boo boo Eva boo demee Maroc. Eva boo demee Maroc dem ca marché Maroc ba fekk fa sénégalais yi. waaw nañuy sonnee ca marché ba jigéen ñi di létt. nga xam ne ay jàmbaar lañ Medina Medina waaw marché Medina bu Maroc. Mhm. da ngay gis ñoom ni ñuy sonnee. te problème bi mooy moodu moodu bii sonn pour dajale juróomi dërëm moom lañ gën a mën a rendi da yónnee sa papa xaalis mu takk ci deuxième femme. Ah, sa papa nga yónnee ko xaalis pour mu tabaxal la kër mu dem takk ci jabar soo moon sax nga ko yónni woon pour mu takkal la ko lay takk am na fi benn waaye wax na ma ko ni ma man damaa dajale 3 millions yónnee ko sam papa yéen tam dox ngeen façon cadeau figure bu ne gis ngeen yónnee ko sam papa waaw sam papa ni ma terrain bi waaw 3 millions lañ ma koy jaayee ma yónnee ko 3 millions di xaar sam papa sam papa takk ci jabar mu woo ma ne ma oustaz léegi lu may def ma ne ko ah, papa de dans sensible mënoo koo tëj. kenn du la yóbbu. kenn du la tëj xanaa nga waxtaan ak procureur rek mu làq ko fa deux jours rek. du ma du la tëj comme yow sama xaalis nga takkee ñaareel bi damay ñëw nangu ñaareel bi yóbbu sama kër teg ko fa. man gis naa ji. mais looloo tax kër yónnee doomam photo kër. yónnee doomam nangu kër photo kër la defi kooku ba léegi dafa may dépression. mus nañ ko seeti benn waay naan ko sama benn waay naan ko soo bul dof bu doon man du ma dof. ci kaw paa bi laay dal waaye duma ma dof. kooku mètre de cent quatre vingt bi muy moo ko njëkk a jëndal papaam yónnee ko senegal te Modou Modou yi yàlla mhm. jigéen bi mu ko yónni woon pour mu takkal ko ko moom la paa bi takk. ba pare photo kër yónnee ko ko. maanaam moom ki mu bëggoon a takk la bëggoon a takk la papaam takk. lan ba pare photo kër yónnee ko ko. ki bëggoon a takk moom bëggoon a takk moom la papaam mhm. takk. Mhm. ba pare photo kër yónnee ko ko. góor bu dem sa kër pare na waa ji kër gi ñëpp la ko woon ne ko sama di wax nii du fi jeex li ñun am nañ ko thème de la semaine mi ngi noonu xam nga am na xale bu góor boo xam ne dafa ndaw soosu moom nit la nitoo di ko wul de tey ki ma lay wax nii dafa dafa mag mu yaroo sago maanaam ngeen di wax nii yëpp uh-huh. ci frustration ci lu nit ki dund mooy waral ni ko oustaz waxee booy ne bëreet di jàpp mbëkk mi wallaay leneen a nekk ci yow am na benn dëkk fii am na benn dëkk fii soriwul dara mi ngi ci benn région bu xaw a sori fii dara xale bu góor bi li ko tax a teg jëwam dem bëggoon naa ndooy baan toog fii ndax xam nga sama maître maag baara lépp ñoo ko xale bu góor bi day dem fàtte ay papiyam ci kër gi dëppaat ñëw di ko jël ñëw fekk baayam nekk ak soxnaam lan mu dugg ci biir kër gi hmm. déglu déglu déglu geesu geesu gis baayam di génn mu xool yem ci jaasi ji mu jël jaasi ji ne teelu loxo bi woon doy baat ne ko dagg naa sama loxo papa lan dëkk ba yëpp yuuxoo ci la tegee njëwam dem ba nagani sii donc yooyu dafay dem yoo xamante ne kan moo xam ndax ci gaal gi la dugg dem kan moo xam ndax dafa topp désert bi lenn lu nekk am na fi ci biir kër yi loo xamante ne mooy tax xale yi di dem nañ ko seetaat kaa bu mel noonu kooku ba tey jii nee nañ ma nee nañ ma sa weesu day desede kay dafa mujj desede ci àll bi parce que moom dafa mën a du ma dellu Sénégal dee rek moo fay dellu dafa mujj fa lañ ko mujj denc lu xew dafa bett papaam ak jabaram lan mu la noonu la génne loo tax ma ne la gis nga immigration clandestine bi kaa yi ci nekk du jeex ku ci nekk ak li la génne xam nga ñun dañu nekkoon ay présentation si dëkku Afrique yi. c'est di recevoir personne par personne. Mhm. nit da lay wax a wax a wax yow da nga yow sa bopp dangaa nga est-ce man bu doon man lii mën naa koo résister. waaw yow sa bopp kii lim lay wax. Mhm. daa li ngay li ngay dëgër dëgër da nga bu doon man mën naa ko résister. Mhm. te encore dafa am ay discours yu am Sénégal léeg-léeg. Euh, yenn société civile wala ay homme politique. dañuy bëgg a jël toor rek euh, bëgg ne dëkk bi amul liggéey dëkk bi loolu day influencer xale yi. am na loo xam ne responsabilité personnel la. Mm. am na loo xam ne tamit volonté personnel la nit ki bi muy jël volonté bi kooku ki am liggéey ba am magasin am jaay magasin bi di dem kooku amoon na ci lu mu jàpp. Mm-hmm. ki liggéey ba am 3 millions dénk ko ma mi ne ko fu ma toll ci yoon bi naa la woo nga yónnee ma amoon na ci lu mu jàpp. Mm-hmm. kon am na discours yoo xam dafa terre à terre te loolu day influencer xale yi. dëkk bi lu mu metti metti am na ñoo xam ñu ngi ciy teg benn teg ñaar. Uh-huh. teg benn teg ñaar te gars yi bu ñu génnee gis li ngay wax ci marché Maroc boobu. Uh-huh. am na ñoo xam la ñuy daj foofu nanguwuñ ko bi ñu nekkee Sénégal. dëgg la am na ñoo xam ñi ngi liggéey jànq foofu te bi ñu nekkee Sénégal dañoo wutoon jànq te mënuñu ko sax. dëgg la dëgg la te bu bi pourtant. bi ñu demee Maroc jànq lañ. te bi ñu nekkee Sénégal boo leen bëggoon a jël ñu bañ. waaw kon ñoom la ñuy nangu foofu mais ñi ñuy jëlee fii di yóbbu Arabie Saoudi ay jànq lañ. Mm-hmm. waa lu tax nga nangu ko bitim réew nangu woo ko fii. Mm-hmm. dëgg la problème bi loolu. li nag ñu ngi wax fay gi boo dee seet fay gi benn lay doon ne ñu ngi lay génne nga dem dëkk ak dëkk fekk boo fi amoon ñaari liggéey complété na. Mm-hmm. la ngay dem doxi fee je sais pas si. dafa am ay discours yoo xam day influencer xale yi nga xale yi. Mm. nit ki yow yaay gëm sa bopp gëm ne mais Baara xam nga loolu jeunes yi pour ñu gëm ko dafa jafe de. waaw non day jafe nga ñaar. Uh-huh. jeunes yi ñaar dañ ne nit du ko nangu. ban ak ban. Europe neexul. Mm-hmm. ak am nga xaalis. Mm-hmm. borom boo yoroon ay milliards bu ñu la nee am nga xaalis maa ngi sant yàlla ngay wax. <laughs> doo ko nangu. <laughs> cat dafa sew. Europe neexul moom. Eh? dañ la naan bu naqari woon nga toog te yaa ngi nii chaque weer nga dem. Eh. waaw ah. man loolu ah, yaa ngi toog di suñu paree. <laughs> mais mais mais Baara Baara am na fu mu sa bopp yow sax ma faat bés bu ne nga romb ñu dem. Baara am na fu mu ah. laal. nee naa ko man de léegi nekkatuma sa doomu nday booy dem doo ma tàgg boo ñëwee doo ne ma ñëw naa dépp ba ma ko jaxaseeg soxnaam ba léegi damaa bañ. Eh, Baara dafa am foo laal foo xam ne gars yi jàpp nañ ne bokkul ci immigré immigration bi ñuy waxtaanee. waaw dafa am solo la. muy xale jigéen yi fiy jógee di nangu ñu di leen yóbbu ay libi ak ay Arabie Saoudite ñuy dem. ak Liban Koweït. diggante boobu musiba mu nekk nga fa moom itam. am na ñoo xamante ne bi ñu demee ba léegi seen waa kër gisatuñ leen. nañu ma baal ci waxin bi mais dañ leen a jéng ci biir kër yi defal ko ay barrière subhanallah benn waaye daf ma ne dafa am réew moo xamante ne xale jigéeni sénégalais yu baree nga fa. ma ne ko hmm. waa mu ne foofu laa gis quatrième étage ñu defal ko ay barrage ci kaw. mu ne ma te kër appartement boo ci fëgg wala kër goo ci fëgg ñaar ba ñett wala benn xale bu jigéen bu jóge Sénégal mi ngi ci biir mais def na fa ay 2 ans 3 ans yoo xamante ne duñu ko ubbi du génn wala buy génn moom ñoom ñooy ànd. Mm-hmm. te na mu fa duggee daanaka dañ ko jaay. parce que ku fa yóbbu moom comme li ngay wax naan sénégalais jaay moroomu sénégalais bitim réew rek la ko nit sañee. nga xam ne daanaka dañ ko jaay waxaale njëgam encaissé ko lekk yóbbu ko ci kër dina bale dina raxas dina togg dina fóot dina yori doom du tëdd du nelaw du lekk du naan te bu xefee sax ñu jabaroo ko fa mais maam sa moroomu jigéen bu ne Italie la jëm lu wuti Somali kuñ doon yóbbu Italie fay ay nit xaalisam yóbbu ko Somali Mali Somali Somali Somali ca dëkku euh, maanaam dañ ko yóbbu na Italie lañ koy yóbbu lan lañ ko lan la wuti Somali soo Somalie moo gën a sori Italie bi. il faut que ñu tey nag ci affaire dem yeeg ñëw gis nga kooku bi mu jotee Ndoye baan mu jàll ci xalaas bi ñu wax ma ko mais pourtant ki ma woo mu régler problème bi immigré la muy Alé Seck actuellement mooy euh, consul honoraire bu Djibouti. alors ñu ngi koy ñu ñu ngi koy. vraiment liggéey bi mu def foofu dégg nañu liggéeyam bu rafet bu mu nekkee macha allah. gis nga kooku liggéey bu rafet. ci lu matul trois heures 4 heures de temps réglé na problème bi. bi ñu ko joxee numéro femme bi jot na ko téléphone fexe na ko génnal hôtel bi jël am ku mu jox numéro biir Somali. Mm. kooku na ko génnal hôtel bi joxal kenn téléphone na ma wax fi nga nekk mu jël ko dugal ko taxi ñu mu taseeg moom ci mbedd mi yóbbu ko aéroport daggal ko biir dugal ko Djibouti. ci lu matul trois te kooku dañ ko doon sànq Somali. yow mus nga dégg sénégalais bu tukki ñun la mu nga so sénégalais moom ñu nga fu ne waaye sénégalais buñ ne mu nga Somali moom musoo ko dégg. barewul du nu dem Somali. non Somali lu fa am. dëkku terroriste la guerre kese fa nekk nee na dafa gis naari di dugg ak génn rek di wax naar yi di dugg ak génn rek di wax xamul lu ñuy wax comme mi ngi woon ak numéro euh, xalaas mu woon dooy baan expliqué ko sinon kon heure bi sànku na bu dul woon ak Allé Seck boobu ñu xam ko foofu Djibouti kon heure bi nu ñuy def parce que ambassade ba mu nga Éthiopie ambassade bi ne Éthiopie moo yor Djibouti mhm. yor Somalie mhm. yor euh, euh, Djibouti mhm. mais heureusement immigré yi fexe nañ ba am benn consul honoraire bu nekk Djibouti muy àll Seck mu régler problème bi loolu toujours dama koy wax dama ne Sénégal li mu war a jariñoo immigré mi sax jariñoo ko loolu mm-hmm. mm. ki toog fii démb du saar boroom xam-xam la Dieynaba Ndiaye bi wax démb euh, euh, bi nekk Canada ay boroom xam-xam lañu ay soxla Oumy Sarr wóor na ñooñu dafa bari tey par exemple tey nga jëlee fii benn consul général yóbbu ko Canada mm-hmm. xamul Canada du seen culture du du seen politique du dara lu xam Canada mais ki fa jàng def fa 30 ans xam ko li ngay jëlee fii nit yóbbu ko foofu mais li gënoon a moyen dépense ci Sénégal nga jël ñu nekk foofu. c'est la vérité. waxuma sax moyen dépense mais man dama jàpp ne consul dañ ko war a jëlee ci ñi fa yàgg. ñi nga xam ne dañ fa dem ba xam cosaanu dëkk ba xam aadawu dëkk ba. yow itam def nga diplomatie man dama la bëgg. Euh, xam nga nag euh, sama waa kër nee nañ caat nee na man li ma jaaxal ci Mamy Diop mooy fi ñu ko xaarul rek foofu la xam mais liñ yaakaar ne moom la xam sax xamu ko. xam nga boo demee fu mel ni Abidjan li réglé woon seen problème benn moment bi fi Abdoulahat Souran nekkee. Mhm. di jàmbaar lool lool lool. réglé fa lu bari. Mhm. mais dañu jël baas mi nga xamante ne dafa dëkk ca dëkk ba. Mhm. yàgg fa yàgg fa nekk. ñu def ko consul loolu moo tax ak ñoom néeg rek waa ambassade ba yëpp maa ngi leen di nuyu maam Saliou Gueye euh, waaw looloo taxoon problème yu bari réglé woon fa parce que xam nañ la xew ca biir dëkk ba euh. donc dëkk boo fa demee da ngay jël ñi fa yàgg mais bañ ko def affaire politique euh. bañ ko def affaire leneen tax nga jël kenn rek parachuté ko fa mu dem te xamul sax réellement lan moo xew ci dëkk ba. Mhm. mais ñi nga xamante ne ñooy dem aussi nañu jege ña leen fa toogal. Mhm. te ñi fay nekk di fa liggéey ñu wàññi seen xeetu ñàkk ker kersa. Mami Diop bay waxati nag dégguma la de. ñi fay nekk di fa liggéey. ci ambassade yeeg yooyu. waaw parce que buñ la fa yóbboo nga xam li la fa teg. doo am yenn comportement yi. parce que kooku ki ñu yóbbu xamul réalité immigré moom laa wax ma ne xam nga ki nga xamante ne fii. <laughs> Ah. dañ koo jëlee fii ndax ci parti politique bi la bokkoon. waaw mais xam nga Sénégal nag mami moom parti politique la falee. parce que benn benn waay def ni Amérique dañ lay laaj loo man waaw France ban diplôme nga am. Mhm. Sénégal ku ma booleeg yow. de la part de qui. <laughs> démb na ko Sass Modou Amérique loo man mm-hmm. waaw France ban diplôme. Mm-hmm. Sénégal ku ma booleeg yow. mais dem oustaz yokkal naa ci Eva ne ko Sénégal rek ngay yor sa CV mu riche ba bëgga a dee. waaw nga dem di uti stage wala liggéey ñu ne la ban parti nga bokk ban tarixa nga bokk kan moo ma booleeg yow. ana sa vignette ak sa assurance sa droit de stationnement ci nit ku yori tànkam. waaw mais Eva am na koo xam ne jigéen la. xëy na di ngeen ko xam. bu dee restaurant ak télé de boo ñaawee moom mën ngaa bind CV moom. <laughs> ah ñaawee mhm. jigéen la mécanicien avion di liggéey. ñaar ñi fay naa seen. immigré la de seen euh, micro waaw immigré la de nekkoon États-Unis di liggéey. ay diplôme mu yéene ko Sénégal ndax li mu jàng Sénégal dañ ko soxla te amuñu ko mhm. d'accord jigéen la mi ngi fii euh, aslem 6 invité nañ ko fii sax thème de la semaine mais jigéen boobu bi mu ñëwee bi mu jëlee ay CV am fu mu ko yóbbu ñooñ dañ ko doon ree ne ko yow CV bi dafa diis demal wàññi ko mun leen kon xanaa da ngay na bëgg ma wax lu dul dëgg te liggéey na ko 6 ans États-Unis ne lii daal Sénégal la ko yéene te bu ko neexoon moom mu toog foofu ak ay doomam mais dafa ñibbisi ne beneen bi lim ci bénéficié wu mooy ay doomam dina leen dina leen yar yaru Sénégal loolu la ci bénéficié wu fi mu ne nii xam la def boutique la ubbi di jaay ay ay ay meew ak ay mbiskit euh, euh, ak affaire yooyu te pourtant mi ngi fii li mu jàng Sénégal soxla ko mhm. léegi loolu moo tax ma ne li ñu waroon a jariñoo ci expertise ak expérience immigré sax état wu Sénégal jariñoo wuñ ko li ñu jariñoo rek mooy nee nañu immigré yi chaque année nañ dugal Sénégal 1200 milliards 1200 milliards yooyu ñuy dugal nee nañ amul investissement cinq pour cent investissement moo ci nekk mais boobu dañoo xamul immigré investissement humain lañ def bu njëkk village yi tey bu fa sénégalais yi nee toog toog ci village yi ba jàngee fa bay am bag grâce à immigré yi. dëgg la ñoo leen di yónnee dépense bu ñu fa toogee. ñoo wax kër ya ñu dëkk. ñoo wax poste de santé yi ñoo fa def ndox mi. am na ñoo xam ne soo demee li nga wax waxuma sax feneen. mais futanke yi Fouta da ngay gis ne ña nga xam ne ñoo fa cosaanoo dëkk fa mhm. ñoo yóndee ordinateur ñu ngi ci ay association yoo xam ne Eva li baara wax waaw gis nga yi waaw souvent boo xoolee immeuble yi gën a rafet moodu moodu yee ko tabax waaw ñoo ko fa def mm. xam nga tukki boo ko jaaree fi nga ko war a jaar mm. te yàlla namm fa sa wërsëg sa teraanga mën naa gaaw ndax euro du moroomu CFA. li hmm. coow lii bari bari lépp nag. euro moom du moroomu CFA. Hmm. mais jaar ko fi nga ko war a jaar. jaar ko ci yoon. Hmm. bu fa sa wërsëg nekkee yàlla jox la ko. dëgg la bu fa sa wërsëg nekkul itam nga gëm yàlla. dëgg mais ñun dañoo gëm ni Eva ku tukki da ngaa war a am looloo ñu sonal. ku tukki mais Eva am na koo xam ne rus naa ñu bis. parce que amatul balaa ku tukki sax u oustaz danaa la joxaat kàddu gi relation nit ak nit rek. Mhm. pour yow am-am wala joxe bi daf ci war tous les jours. dëgg la lu koy foog tey dangay woo Eva. Eva foog ne lam la woo daf la war a jox wala vice versa. xaw ma ndax comprendre nga li ma. bëgg a wax te relation yi naturel la tuñu. naturel la tul te léegi ah. réew mi. wax naa ko Modou Modou yi ñu ma doon conférence ca Barcelone ma ni leen. Mhm. da ngay nekk Sénégal amagoo dara di taaba taaba wala suwaat nga doon en ambulant. waa di bëgganteek jigéen mu lay dawloo. la mu yëg ni tukki nga. Mhm. amatul sa numéro mais dana la recherche Facebook ba génnee sa tur. <laughs> envoyé la message ne la ma sa numéro. nga envoyé ko sa numéro mu message la lu tax nga bàyyi ma. dégg naa tukki nga booy dem doo ma tàggu te dala daan dawloo mais bi mu yëgee ni jël nga vol bi mu bëgg a bokkat kooku boo ko takkee takkoo jigéenu intérêt. ki la faalewul ci réew mi ba nga tukki mu naan la tiima manque nga koy fuy nga koy wuyu amoo fayda. am na immigré yoo xam nag au lieu que ñu ñu koy recherché. moom mooy dem ba egg woo la waaw soo xasee gis indicatif bi rek ne ah kon kii nekku fi. te bari na Moodu Moodu yoo xam ne ñi ne yónnee xaalis. takkuñu leen mami nee na wax nga dëgg. di may xaalis koo xam ne takkoo ko bàyyi sa soxna. mu ne fii toog ci sa wetu yaay sa yaay di ko yónn hôpital suba ngoon ba bëccëg. mu yendu ci waañu ba ñaq tooy xëpp di la sëyal ci biir kër gi lu bon lu ne mu dégg ko nga dem tukki juróomi at gisu la te doo ko woo téléphone loo liggéey di ko yónnee say gel du dëgg te lu ñu la wax ci moom nga gëm. gars yi jamais de la vie ñu yónnee ah, ñu yónnee xaalis seen jabar mais seen gël yi la ñuy may xaalis. <laughs> ne ci Facebook bi di di di bëggante koo xam ne yow xamoo ko day raxas ay photom Snapchat lay photo nga ne ku la yónnee di photo laaj la. <laughs> laaj ko sa photo carte d'identité <laughs> nga xool ndax photo bi mu la yónnee moom la wala du ah, moom. photo carte d'identité gi ndokk bañ ko dul snap. duñ ko doon snap. nee xale bu jigéen bu la fi yónnee photo bala nga koo bëgg laaj ko photo carte d'identité. dañ lay ndax da ngay nekk ci réew ma ñu xam ne bitim réew nga nekk ñu ñu ñu la ni dañ laa bëgg ngay envoyé xaalis. Mhm. ñu lay lekk. di la lekk. Mhm. di la envoyé ay photo yoo xam ne ñoom meluñu noonu la daloon waaja waaja ndaw si da koy yónnee ay photo chaque jour nekkate ci sinap bi lay photo mhm. xam nga jigéen ñi jamais de la vie ñu photo photo naturel dañuy sinap raxas ko yokk seen bët yi. génnee ko ba mu rafet envoyé la ko. lan waa ji di gis photo yi ba ñibbi si nag seet si ndaw si waaw ndaw si ne tëll waa ji génnee téléphone bi moom di xool ndaw si di xool portable bi <laughs> jékki-jékki ne ko mais yéen daa mel da ngeen di changé te ndaw si ne ko pourtant changé wuñu sax mais parce que moo ko nangu mianduur jëlal boobu boo nekkee bitim réew di liggéey da ngay xam li nga bàyyi mm-hmm. dëgg la sa teraanga bu ci kenn ëppale sa yaay ah, mm-hmm. surtout nga jaar ci gaal yi jaar ci désert mais alalu moodu moodu yow Eva li moodu moodu yi di sedd bi hiver bi glace gi taw ci sa kaw ah. ngay liggéey ba yàlla dénk la teraanga ku tekkiwul dara toog ci appartement almadi yii. Mhm. photo wu ba naayes di la di di la ratt comme comme bëy mais da nga war a bañ. sa teraanga xoolal na ci sa yaay di lekk. Mhm. dëgg. mim réew daal xam nga lu xew soxna si nga ko nga ko ci jox soxna si sax nay mos mais sa yaay moom nay lekk. waaw ah, man daal li ma d'accord xam nga mooy lan man. Mhm. oustaz doo dellu si tuuti nga def la part des choses wala. xam xam nga Eva. Ah, ah. sa teraanga. bu ci kenn ëppale sa yaay bëgg na lu yaay. mim réew. waaw moo soppiku soppiku boo xam ni booy jàpp jàppal sa xarit. su ma dee soxna si doo ma laaj nu may def. Hmm. danaa jege yaay ba nga xam ne doo mën a ne nii ne nii bu ñu wooyee yaay sax mu yóbbaale ma. Hmm. <laughs> mais bokk na ci farata. Ah! xam nga mi nag jabaru Modou Modou yi dañoo sonn. ba egg ci lool. parce que toog gisoo sa jëkkër rek daa metti hmm. nga bëgg cee booleek nag mbugal mu tàmbalee ci àdduna jëm alaaxira parce que ñaar ñoo lay mbugal ci biir kër gi sëyu mhm. Sénégal yi li tax mu metti mooy da ngay dëkk ak njëkkeelu soof loo xam ne lijjantiwul problème am mhm. mhm. sëyi jiwul souvent ñi sëyi ji ba tas ba ñëw ñooy bëgg a ñëw gérer kër gi mais xam nga ñooñu moom ay wengare lañu rek Oustaz Modou Fall ñëw ci biir kër gi yow ah. yow li ngay digle boo ko defoon toog ci sa sëy xalaatuñu ko yow yow yow yow foo dem doo fa toog boo ñëwee bëgg a gérer kër gi bëgg a waree kilifteef sa mag yépp nga tàqale leen ak seen jabar am na ñoo xam ni dañ la naan li ngay yónnee sa jabar na jaar ci man pour lan. sa yaay moo la ko sànn ci kon lii nga wax nii rek tax na nit ki jàpp yoonam dem. mais dëgg la c'est-à-dire complication yi sa jabar a def moo nangam yaay kii. tax na nit dem dem boo xam ne kenn xamul. moodu moodu bu fi bàyyi jabar boo ko woowee téléphone boo nee allo bébé mu ne bébé nee ko massa avant tout massa mu ne la ci lan nga ne ko coono yi ngay dund. dafa metti mm-hmm. sa soxna génn nga woo sa yaay anam mu naan la xanaa yow nga xam fu mu dem kana ca France nan lay xamee kii fu mu ne. dégguma la de. sa soxna nga bàyyi ko ci réew mi. Ah. woo sa yaay téléphone ni ko ana Eva mu ne la xanaa yow ma ne foofu de nga xam fu mu dem. Mm-hmm. toggul yekkul taxawaalu gu dégg bëccëg la fi nekke jërëjëf kee amagul këyit pour ñëw te bàyyi fi soxna. mais xelam du dal. Baara euh, jërëjëf Fall moom réalité yëpp lay xam. koña koñaat yeeg rukkaat yi euh, xale yee ngi jàpp yoon bi di dem. mu compliqué loolu doy waar te gis nañu léegi jamono yu ñu toll dafa mel ni image yi dafa gën a bare te itam mu ñuy choqué euh, tey lan ngay ngeen di xalaat ne tey donte bokk leen ci côté politique bi mais yéen yi nga xam ne citoyen bi monde ngeen yéen a ngi euh, nekk ak émigré yi émigré yi lan ngeen xalaat ne mën ngeen ko dolli rek ci kàddu. waaw euh, ñun moom toujours dañuy gën di ñaax xale yi. Hmm. ñu yokk seen formation. nañu xale yi nañu am formation. Mm-hmm. métier boo jàng jàng ko ba mën ko. même bu lo gis nga des fois nga gis gars yi mbëkk mbëkk mbëkk ba egg tubaab yi ñëw di wut nit yu am compétence duñ ci gis kenn. Mm-hmm. boo soxlaa soudeur métal doo fekk bu bu soo soxlaa tailleur doo fekk bu qualifié. ñooñu léegi loo mën a def nekk ci tool yi di wittantoog ay marchands ambulants yu ñàkk fey fayda ngay mujj mm, mm. am na ñoo xam ne ba ñu eggee la ñu la la ñu découragé parce que lañ foogoon ne moo fa nekk bañ demee gisuñu ko mm-hmm. te li ci gën a metti mooy gis nga immigration clandestine bi mu eggee bi nit ñi gënee bari foofu daf dafa tax tubaab yi gën a xeeb africain yi xeeboon nañ ñu demee dañ ñoo gën a xeeb te pourtant ñoom ñoo ñu soxla mais dañ ñoo gën a xeeb mm. di ñu reetaan di ñu yow ki la daan laaj ndax fi ndax ci aw kaw montagne yi ngeen dëkk man mus naa voyager fenn am ku ne ma Euh, dégg naa Afrique yéen ci kaw xeer yi ngeen dëkk ci kaw ay garab ak yooyu ngeen dëkk. ma ne ko waa ci yooyu lañ dëkk. parce que léeg-léeg benn image. bu bu waaw ma ne ko ma ne ko si si ci ci montagne yi lañ dëkk. dañuy gas montagne la dugg ci biir dëkk ci xam nga ki la doon xoole bët boobu xaritu ndoy baan la xam nga ku la doon xoole bët boobu mhm. léegi tey yow nga ñëw mel ni sa dëkk dara nekkatu fa mhm. te pourtant dëkk bi am na lu fi nekk sànq euh, euh, Maysa Gueye Colobane mi ngi lay nuyu sànq ni nee na gëj na laa gis. pour pourtant classe sama waaye la nuyul ma ko lu bari pourtant classe googu mosuñu génn Sénégal te bari nañ fi ak Baye Aada rakkam man waxu waxuma sax mhm. ay ñu mag ñi mhm. waxuma ñoom président Youssou ak ñoom Serigne Boubou ak ñoom mhm. mais ay xale ay jeunes tey boo duggee Sandaga dugg fu nekk ci dëkk bi ci métier mu nekk nag da nga fiy gis koo xam ne am na ci lu ne te mosul génn fii bu baax bu nit ki da ngay gëm li nga am tukki nag destin la tey gis nga Euh, yàlla bu tuddee ne suba Espagne ngay añee ji. kenn amul garabam. ñun dañ daan ñëw toog toog aéroport ba avion bi ñëwee gars yi bi jeex bopp na ah xool ko fi mu ne fekk fu let mu génn la fii yëpp. Mhm. fekk booba yow mii dem buggoo ci dara. dëgg la mais dangay ngay na lii nattu la. Mhm. mais ki nga xam ne nag moo nattu boppam moom moo bëgg a nattu boppam. parce que am na influence su muy dégg bu la jara dara dara bu mu la ko jaral nit li nga xam moom leer na ko ne moom du ko def mu la koy def lool su doon mën a su doon mën a moom tollu na ci te defu ko. moom la demee defu ko. moom mi la koy wax mi ngi fii. pourquoi moom defu ko. Mhm. te gis nga problème bi. Mhm. Euh, gars yi bu ñu eggee ba ba ba egg gàddurum ba na ngay egg connexion. connexion mooy fi ngay taxaw ci tefes bi di xaar gaal bu la yóbbu Lampedusa dañ fay def 6 mois am na ñu fa feebar ba dee fa foofu ñu suul leen fa. wallahi laa lay wax nii ñoo xam fa lañ feebaree ba dee connexion foofu lañ naan connexion te gis nga gars yi foofu gaal bii dugg. ñoom passeurs yi xam nañ ne gaal bii bu buñ ko tegee dina dem tey. Mhm. gaal bii toj xam nañ ko gaal bi ñuy jàpp xam nañ ko. parce que gaal bi ñuy jàpp ñoom ñooy woo ñi leen di jàpp. waaw gaal bii toj ñoom xam nañ ne gaal bi balaa dem euh, euh, une heure de temps wala 40 mille wala 30 mille day toj ñoom xam nañ ko. parce que boobu lekk nañ xaalisu booy coow li bari na. bëgg nañ leen a wàññi bëgg nañ bëgg nañoo euh, débarrassé wu ak ñoom ñu jékki-jékki rek indi benn gaal teg. leer nañ ko loolu maanaam ñu ngi rey nit ñoom xam nañ ko est-ce que xam nga diggante wam naari ñaata la ñuy fayeeku cinquante mille francs sénégalais yi nekk foofu ak Mali Guinée ñooy laaj booy sept cent mille francs wala cinq cent te sax dañ dul fay naar moo tax man la bu doon naar ak naar kese noonu ñoom jàpp nañu yoon bi dëgg la ah. li ma wax dama la ñooñu bu doon dama ne mooy seen liggéey loolu mooy seen liggéey loolooy seen liggéey te ñu boo egsee xam nga bu njëkk lan lañ leen boo egsee Mali gii Mali ab paawu sénégalais bu fa def 40 ans nga fa daan fekk. Mhm. loolu yooyu léegi gaa yi nand nañ ko. Mhm. oto la bus la ñuy jël raxas ko ba mu set bus bi amul moteur. paa bi mooy ñëw ne la Modou Fall mais ab malien la bul wax ak moom te ñooy liggéey de. <laughs> bul wax ak moom man sénégalais la sama doom nga dama laa bëgg a dimbali. samay doom bërki démb fii lañ jaar sama doom mag yi bërki démb oto bii sax am naa ci ay doom yuy dem oto bii direct Espagne la jëm 500000 ngay joxe sama kër laa lay yóbbu wala naa la dalal fenn. bu oto bi départ rek ma siffle la nga dugg gis jour bi ñu leen di woo kenn par kenn dañuy dugg ba toog ba oto bi fees dell duñ gis kenn. <laughs> lan duñ gis kenn oto moteur newu ci oto <laughs> soo demee ci frontières yi côté ay Burkina ak yooyu da ngay gis dañuy jàpp migrants yi di leen dóor parce que ñoom li ñu wax ñoom policiers yi dañ ne dañ leen a bëgg a décourager. Mm-hmm. moo tax ñuy nangu seen xam mais c'est faux. Mm-hmm. c'est parce que bu fekkee da nga leen a bëgg a décourager woowal seen ambassade leen jëlan téye nañ benn bis boo xam ne am na cinquante sénégalais am na soixante am na dix gambie am na nanga te xam nañ ne ñii bu ñu leen bàyyi désert libi bi lañ jëm wool seen ba xam moom lan la ciy def wala nga jëm leen escorter retourné waat leen mais ñu ko dañuy nangu seen xaal ci frontière bi léegi bis bi nga continuer soo eggee soo eggee Agadez yow yoratoo dërëm nga woo mami na ko mami yónnee ma deux cent cinquante mille ñu mhm. yónnee la deux cent cinquante nga dem gàdduroom diggante Gadrum ak Tripoli diggante Tripoli ak connexion tukki la parce que Libye jàpp libi bi ngay gis ni moo ëpp Mali te Mali mat na Sénégal presque cet fois. léegi nag connexion boobu ngay gis gars dañuy dem ba euh, ndoxu géej gi la ñuy naan. lan jën yi génn ci géej gi nii la ñuy jël léeg-léeg weer ko ba mu wow ñu koy lekk. foofu la nit ñi di dee. la fa feebar dee kenn xamul lu mu toll duñ la sax mën a suul suul bu baax am ñoo xam léeg-léeg saaku fariñ lañ leen di may. ñu koy xóoyal di naan. looloo am ci yoon bi. loolu de ku àgg moom boo amee xaalis ku ko lekk da xeex nga war a. am ñoo xam ne tey am na góor ñoo xam dañ leen doon jabaroo. parce que amoo ku la yónnee xaalis yow leer na na yow sa yaay ji nga bàyyi Sénégal ak sa ma sa sœur bi nga bàyyi Sénégal est-ce que ndax añ nañu kon kan ngay woowu mar laa yónnee dërëm. kenn dañ la mais est-ce que yow xaalis boobu ngay am dem ba egg. boo xalaataate heure boo gisee xaalis bi sax sa xel war naa jaar ni nga ko amee. très bien liñ ci ñaata doom ñoo ci juddu. yëf bi yëf bi doy na waar. liñ ci mën a wax yépp euh, daanaka waxtaan bi du ko jeexal. Mhm. xanaa bàyyi leen ngeen tàggatoo ne thème bi dañu koy continuer nag dinañ ci gën a indi ay waxtaan indil ci ay leeral def ci ay éléments pour que sunu jeunesse bi xam ni la ñu bëgg rek euh, du lu yomb du lu yomb nañ koy seen nii rek mais yombul. Hmm. très bien oustaz Modou Fall lan ngay tàggatoo mbir mi doy na waar torop. Eva doy na waar xanaa rek ñaan yàlla ña nekk bitim réew di sonn te amaguñu këyit. yàlla na leen ko yàlla may. amiin amiin. ñi bëgg a dem it te gis ni Europe rek la ñu mën a la ñu mën a dem pour am teraanga yàlla na leen yàlla yóbbu bitim réew. Mm. te ñu am fa seen teraanga nag te mu légal. amiin amiin ñaanal réew mi yëpp waaye itam ñaanal waa télévision Futurs Médias. jërëjëf ñaanal la Eva nuyu Pape Cheikh Diallo bu baax suñu xarit suñu soppe. <laughs> suñu rakk nuyu soxna mami mami moom damaa bëggoon ñu yóbbu ko Libi. <laughs> denc ko fa un mois. indiwaat li bi ci désert ba. nuyu El Hadj Baara bu baax moom itam ziyaara ko nuyu Mia. nuyu Cissé nuyu madame Ba. nuyu ko moom tam bu baax a baax ziyaar ko ñaan yàlla réew mi yàlla fi yàlla def jàmm amiin asalaamaaleykum wa rahmatullah pourtant passeur bi gën a mag passeur bi gën a mag fi mu ne nii Eva la tudd de Eva la tudd <laughs> moom mii toog la fa lay fanaan bu xëyee ñëw def émission deel passeur bi gën a mag ca dëgg la pourtant da ngeen a nuroo sax Eva la tudd danoo niroo moom la fa lay fanaan bu xëyee ñëw def émission dellu oustaz dafa bëgg li may wax oustaz yi ma wax ko ci plateau bi sa laaw du ma wax ci plateau bi yow tàggatoon waaw ñi ngi gërëmaat ñi bokk bokkaloon plateau bi soxna euh. Mami Linguère euh, namoon nañ la euh. Oustaz Modou Fall tam ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di rafetlu sa liggéey bi ngay def soxna Eva moom toujours comme ça ñu ngi lay nuyu di rafetlu sañse bi vraiment ni ngay ni ngay def ni ngay def temps yi doy na waar xaw fooy jaar mais ni ngay def doy na waar <laughs> waa mami tamit bii nii kon bokk euh, sa mën na mën na dem directement my boutique su demee my boutique mu woote ci 77 547 24 26 Ngoné Sall Fall merci à toi elle a une toute nouvelle collection. daw leen foofu daaw waa bu ndàngal ma. Mm. di nuyu monsieur le maire ak waa dëkk ba yëpp sama waa kër maam El Hadj Baara jób nee nañ nee nañ li nga may tooj naan ma Diop ñoom d' nañu <laughs> euh, di nuyu Linguère bu baax maa ngi koy nuyu di nuyu. Euh, waa ñoom soxna Oumy Sarr yooyu nekk Canada. Mm-hmm. ak ñoom soxna ba Dieynaba Roqaya ak euh, euh, Mamadou Sarr. ñooñu ay nit yu am solo lañ ñoom tamit. parce que dañuy mm-hmm. liggéey liggéey bu am solo ci immigré yi. di mm-hmm. ñaanal nag fépp fu immigré nekk moo am jàmm. parce que tamit ñoom jàmm rek leen jig ndax seen jàmm tamit jàmm la ci réew mi. ndax ñoo xam ne vraiment ñu ne lawul jëlul big boo moytul dépense du am wala courant duñ ko fay. kon vraiment nañ leen di ñaanal ñu am jàmm. ñi nga xam ne xas nañ nekk ci yoon bi ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñu réussir. ñi nga xam ne xas nañ dugg yoon bi te xalaatu ñoo wiñeeku ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñu réussir ñi des ci géej ngi leen di ñaanal yàlla yàlla yërëm leen amiin wala yàlla bañ leen a topp dara tamit très bien amiin yàlla utu leen ci seen njaboot amiin amiin Adja Linguère wallaay tout jaune macha allah ah waa xam nga rek doon doon tiital oustaz Modou Fall rek fan mu ñëw indil ma vert mi ni après yow boo kiiwee rouge noonu rek ñu ñu drapeau Sénégal noonu wutub étoile Eva mii nag bu leen ci dara jaaxal mooy Eva ma nekk ci kiiwul libi ba <laughs> te oustaz bëgg ma faa yóbbu man mënagu maa dem macha allah bu may dem Abidjan laa jëm dellu siwaat jërëjëf Eva la la la papa Ndiaga Mbaye waxoon rek mënagumaa ñi béeg li ma yor fekk njaboot ga toog di la nekk bu mu la dal bu la dal jëlal li nga yor dellu ca kër gay bégale mm-hmm. am na ñu nekk ci àll bi jomb na maa dellu su ma demee lu may yóbbu mm-hmm. lu ma fay fekk mënoo matale àdduna yëpp ki takk di tukki danaan su ma eggee miire Sénégal waaye xamal ne tukki xaaju mbugal la kon bul xeeb li nga yor bul ko yéem kii duy ta feesalagul bu mu tànq di tuur yàlla yéemul dara dara feesul bëtam itam la nga yor jël ko dellu si ñëw bégal ci njaboot gi mm. ñëw toog ci seen wet bu ngeen di sombi ngeen sombi bu ngeen di ceebu ñebbe ngeen ceebu mm-hmm. moo gën bëgg a nangi faawo ndax lan ndax wutum alal alal mën nga ko wut ba am ko dee nit jaar na fi ci mm-hmm. gaal yi daw ba dugg Espagne ba ñu bàyyi ko mu dem ba cay mbokkam egg ba toog yàlla moom ko fa amuñu sax lu ñu ko delloosee mm-hmm. nañu xalaataat loolu yëpp di wax ne nag maa ngi sant bu baax a baax a baax euh, waa Sénégal gépp tey nag ki anniversaire day sama xol di sama doomu ndey soxna maam Fatma Saliou madame Fall mhm. bu sëriñ Saliou ambassadeur kooku moom sama léppi fépp la di ko wax ne ko maam Fatma dundal dundal dundal ba énervé mhm. waaye keneen kii nga xamante ne tey la bësam itam di Pape Laye Pen mhm. parfumeur des VIP Pape léegi nekkatoo sax parfumeur des VIP ndax man gëj na maa xeeñ sa lu neex te war ngaa ñëwaat plateau wareef di fi indi say paquet loolu moom lu jaadu la kon ñi ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di wax ne waa Ndeye Ma Fall sama rakk jooju ci terrain ACAPES vente privée bi maa ngi ci biir. très bien jërë ngeen jëf Matar passe euh, l'anniversaire bu bu xalaas. kanti passe partout bu ah passe partout kooku Makhtar Diagne la tudd moom itam ma ngay liggéey ak waa xalaas macha allah xale bu baax bu yaru. ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér di remercier ni ma ko waxe woon may boutique ma nga nekk ci 77 547 24 26 ma nga amee nag euh, tunique yi rafet yoo xam ne daal jongama yi mën nañ koo sol ñoom mami Linguère mën nanoo xaar ndax ñoom ay taay fiin nu voilà euh, su ko defee itam ñu ngi remercier bu baax a baax ki nga xam ne mooy Ndey Ami Coiffure Fatoumata Coiffure Kor euh, buuba jenn ma nga nekk ci 77 648 56 648 56 Marie Camara merci pour les beaux foulards bijouterie rotonde aussi ñu ngi koy remercier bu baax a baax euh, rotonde waa kër Ousmane jërë ngeen jëf ci bijoux yi rafet yi lu dul baax baax a ko gën dinañu gërëm bu nu waxee baax tous ces cadreurs qui sont là les techniciens ah ñoom ñoom ñoom Bayo ñoom Lamine Bayo ñoom euh, euh, Mansour Niang ñoom Iso ñoom Khadim wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ñoom Abdoul Aziz Fall mooy équipe bu mu yaa duñu lim duñu lim wax dëgg yàlla loolu la yàlla def TFM yàlla ko yàlla gën a dolli gën ko barkeel di leen wax ne ñu ngi leen di jox euh, rendez-vous altine nuyu waa Gambia bu baax a baax soxna aw a Jili ñu ngi koy nuyu nañu nuyu nag first lady bu baax a baax a baax lépp mënuñu ko wax ci télé bi Khady Sow borom hôtel bu nice bi ñu ngi koy nuyu maître Lena Aydara bisous à toi du fàtte yaayu Jami Diallo kon ba Gambia wax dëgg yàlla ñoom Sukena Jubaate ñoom Kati Jox Samba yéen la ñu may li nga xam ne moom la ñu waxtaanee tey ci TFM yëpp jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi Adja Oumou Khayri euh, Diagne ca Sacré Cœur yaayu Rabi ñu ngi koy nuyu jërë ngeen jëf wasalaam ba altine incha allah.